taala wa barakaatu asalaamualeykum wa rahmatulah taala wa barakaatu mbokk yi ñu seetaan am nañu mbégte ak contentement bu bant nag euh, bu ñuy wàññi ko ci fête yi nga xam ne nag mooy fête Noël beeg gàmmu geeg yëpp ñuy gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan seen émission Kouthia Show di am mbégte bu yaatu boo xam ne nag amal nañ ko ci émission tey bi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan tey ci altine le 28 décembre nañu wax 2015. mbokk yi dina ñëw ci programme bi tey programme bu yaatu lay doon ndax xam ngeen ne euh, gàmmu ngay taxoon lu bari nag euh, waxuñu ci jëm ci nawel bi abbé Jean moom nee na nag euh, li nga xam ne moom mooy ñaxtu wees am na ay ñaxtu yu mu fas yéene indi jëmale ko ci li nga xam ne moom mooy fetu nawel bi jàll te mbaam nekkoon lu jafe pour nga teg ci bët ndax am na ñoo xam ne dañoo indi woon seen mbaam ca frontière ba ñu wàññi ko te loolu nekk na loo xam ne wax dëgg yàlla fet bi ren xaw na ko takk suuf moom tax mu fas yéene ci jóg wax dara ñëw tamit ci ki nga xam ne nag moom mooy maître Abdoulaye Wade wax ja nga xam ne moom la yebal nit ñëw waxal ko ci place bi loolu nag dina ci ñëw mu gën a yaatu dina ñëw tamit ci livre nga xam ne nag euh, la camisole la tudd te Cheikh ko dinañ ci ñëw tamit wax li tax mu wax la camisole loolu ci boppam tamit di euh, livre yi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi génn euh, mbokk yi tey boo xoolee suñu programme dañ leen ci defal surprise maanaam cëf tuuti waaye dinañu amaat mbégte ak contentement jàkkaarloo képp koo xam ne namoon nga ñu tey ci émission bi nga xam ne moom la ñu tàmbali après bu ñu jógee ci fetu gàmmu gi xam ngeen ne altine ba tey la jëmm yi gën a jàkkaarloo ndax mardi la ngeen gisoon révision la ba ca mercredi ba la amoon yëpp nag ca ko jagle woon ba ci ajjuma euh, alxames ba ajjuma ji ngeen am révision moo tax tey ñu fas yéene ñëwaat ak yu bees tàq yoo xam ne vraiment di ngeen ci am mbégte ak contentement bu yaatu boo xam ne nag képp ku nekk di nga gis sa bopp ci biir ka nekk ci réalisation ba moo fa doon nekk tey nag euh, moo fa nekk moom tuddum di euh, Pape Samba Thiam feggoog ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Thiandoum ca caméra ya ñu jàkkaarloog yaaw gervé mi nga xam ne nag moom mooy yor ñaari caméra ko ngarale ca kanam ak ca digg ba ak central ba am nañ mbégte également ca ja yi tey suñu programme noonu lay demee xam ngeen ne tamit mbay namoon ngeen ko dana ñëw léegi wax ñu produit yi fan la toll bu ñu jugee ci loolu nag ñu dem ci directement programme bi nga xam ne namun tiku lay doon suñu diggante ak yéen waaye tamit delloo njukkal dina ci am moo tax yu bëri dañ leen bàyyi ngeen découvrir ko ni ngeen koy gisee oh allo mbay mbay allo waay waaw fa nekk a a bees loolal ba tàgg lu bees a bees lu bees a bees Kouthia laaj ma lu bees a bees. Meme Mbaye lu bees a bees. loolal ba sag loolal laal ba sag sama xel ci julli lay dem mais laal ba sag ba pare. du caaxaan yow loolu mooy jaxase yàlla yow. yow doo laal ba sag mu laal ba sag caaxaan rek yow. Mbaye Mbaye li nga def ñaanoo de. waaw waaw. dig naa la ca foire ba nag. an sa ba. waaye yow ma ne ñooñu ñëpp gisuma leen. yow laa gis ñoom yow ma ne gisuma la. yow yow Amadou la yow yow li nga war a lim yëpp limu ko xam nga li nga war a lim. Mm. fa gis ca foire ba ndaw si ma gis nga taxawal nga naan ma sawaay noppi li dafa njool war a fa gàtt bu fekkee am na nga ko njool de ñàkk na parce que ku gàtt laa gis. bu fekkee ne ku gàtt am na ku eh, eh, eh, gis nga yow la kon kay li nga war a woo ko. xanaa Manaar. ma xam mais yow booy. <laughs> non Madaar daal jé Madaar rek la bëgg a jigéen. Ah, yow nee naa la bi nga ma mayee xam nga Madaar nag bi bi nga ma may moom. Ah. du du pour sax fóot ay ay ay yére mais sama sama sama saabo jeexoon ma fóotee ko mais gis nga li ma jox résultat te fóot tax koo jóg sax <laughs> walaay walaay walaay yow da nga baax. damay njëkk a waxtaan dañuy waxtaan si si mbirum Madaar parce que Madaar man gisu naa gisu gisu gisu gisu gisu gisu boo xamante ne Madaar dafee la wuñ ko saabu. Madaar dafa ñu ngo produit Madaar fu mu jugee laa bëgg a xam. booy te ñii nee nañ Cap Vert la jugee. yaa ma gën a xam fi mu jugee. Ah. dégg naa la ca usine ba léegi yow produit boo publicité boo xëyee dem ci usine ba gis naa la fa yaa ngi fay tegal ma daar pour setal gë yow man xam nga am piis waaye tegal nii da ngay jéem rek nee nga lu ma leeral ko loo dóor ma leeral ko yaa ngi foon di journalier baax na ci oto baax na ci euh, lu lu dara sama digganteeg jénga bëgg ñagasal dong <laughs> waaye dafa dëgër de yaa ma gën a xam ma daar ñu def <laughs> ma daar bi nag mooy citron bi booy bii lépp lay jonju lépp lu tilim to oos rek da koy jonju wuy ma ban na esorol <laughs> Euh, bu manqué ci kër gi de xam naa fan la jëm la nga ca yóbbu ca foire ba di ko maye <laughs> baax na rek yow demal rek ndaw si naan la mi bi mu indiloon keroog ci guddi moo gën a neex xanaa bii ngoo ko joxoon bii yaa illa mango baa ngi mu man ni ma bëggee mango ma ñëw ma koy laax fekk xam naa ne ma yaa may waaw bii mooy café la ki kii café chaud café chaud bi man oh, chocolat chaud bii gis nga bii benn meew neexatuma benn boo demee buñ la ko tàngalee ci pâtisserie yaa ngi koy jëndee maanaam kaas bu ndaw rek mun nga cee am ñeent mel nii. moo tax léegi mu manqué. gis nga xam nga am na cere yoo xamante ne da nga koy lekk muy xajam. waaw ndekete estrol sec soo ko meewee lépp lay seeyal. ba pare nag da ko façon donju xeer yooyu yëpp lay seeyal da koy seeyal. dégg naa yaa ngi koy jaay Cees lépp looy def maa ngi koy yëg. ma ne yow ma yow. mère associé sama maam bi ma yar. waaw ki dëkk Jaxaw. waaw mère associé moom ndekete xam nga amul ay bëñ. waaw moom lay muucu. baax na kon li may wax mi dëgg léegi leer rek. yi moom paquet 24 la woon léegi 12 la <laughs> moom chaque jour mu wàññeeku waaw fekkee loo publicité ñam ci moom dana mel ne Dakar rek. tegal rek yow kay booy war ga bii. ni mu baaxee non ni mu baaxee laa xam ne yow. ba ko commencé ni dafa manqué ci boutique bi nga ko commencé jaay ci kër gi. Eh, waa télé waa yow waa télé TFM bi yëpp. xam nga benn kees lañ ma siy jox waa télé bi yëpp gisee naan mais boutique yi yaa ngi koy réclamé suñ ko jaayee mu jar daanaka war bi yëpp jënd war nga ndax gis nga war nga saamaan rek bëgg ko wëkk si tax ku ko ñam boo demee sa koñ gisoo ko da ngay am problème waaw ah, mbay mbay mbay suñu añee mbay mbay mbay mbay léegi damay laaxatu d'accord ndax wa saamaan ah man damaa bëgg damay commencé sonn si saamaan waxoon naa ko de war nga bii moo a daana war gi yëpp wuyu ma waaw léegi lii lañ am ana baara musu baara musu jeex na ba ci démb mais nee nañ kontaan nañ si yow kontaan nañ si man. Ah. waaw ñu ngi may guddal ñu ngi naan mbay yaa nga gudd fan. di publicité ay produits. Euh, euh, ba pare te produits yi ñuy ñëw. dama la soxla ba pare kaay baa ngay la sa basan kaay mbay dama lay laaj doo ma yebee non parce que waa Baara Moussa wax nañu leer. nee ma sa waa ji jox nañ ko ay carton yi carton carton poobar mbay gis naa la ngay yeb bàyyil piis bi mbay li ngay def nii baaxul. dóor yi ngay dóor di ko sama xarit bàyyi li ngay def après dañ gisee. di dóor di lekk nii di bàyyi gars yi loolu loolu du yoon. ma taxaw wax ah. bu ma taxaw wax xam nga fi ma ne wax bu baax waa Baara Moussa dañuy joxe ab nga génne ko da nga koo génne doo génne. dégg nga métti bu bees yow. ban la. lalal basang. te di ko delloo soo jëlee. lalal basang. te di ko delloo boo jëlee. lalal basang. eh eh. yow lalal basang yow lalal basang yow lalal basang bàyyi góor yi yow lalal basang te bàyyi góor yi yow lalal basang te bàyyi góor yi yow lalal basang te bàyyi góor yi may lalal basang te bàyyi góor yi lalal basang te bàyyi góor yi may lalal basang nga bàyyi door yi lalal basang nga bàyyi door yi lalal basang nga bàyyi door yi mbay lalal basang nga bàyyi door yi mbay lalal basang nga bàyyi door yi lalal basang nga bàyyi door yi kontaan bu mag gërëm képp koo xam ne nag yaa ngi seetaan suñu émission Kouthia Show di ci gërëm nag euh, bépp nag euh, Euh, doomu aadama boo xam ne am nga ci mbégte ngay olof ak séeréer tukulóor war bambara war nga lekk ci beneen làkk gëm ne wax dëgg yàlla yaa ngi seetaan émission Kouthia Show yal may jàmm ndax jàmm jooju moo ci gàmmu googu xam ne nag dugg ci bismillahi rahmani rahim gën ci alhamdulillahi rabbil ak képp ku fa teew ak ñu fa teewuloon jotuloon dem ñëpp nag am nañu ñaanam ak gis ko ci télé bi ñu daal koy wane ngeen xam ne nag wax dëgg yàlla Thierno nitu yàlla la ñu koy ziar bu baax te ñu bu baax suñu papa alaaji Thierno Madani Mountaga Tall di koy nuyu di xalifu Thierno Mountaga Tall ñu ngi koy ziar tamit ziar bu wér ak alaaji Thierno Bokar Alpha Ba nekk ca war a fonde yal na yàlla guddal fanam sëñ Habib Gaye mois de ma sëñ Mansour si ñu koy ziar moom tamit ziar bu wér ci guddi googu nga xam ne mu ngi koy waajal ci mois de février incha allah di gàmm bu mag boo xam ne at bu nekk da koy def yan ci yàlla may ñu egg ci jàmm bu soobee yàlla di nuyu tamit alaaji Thierno Nourou Tall ca Sacré Cœur moom tamit gàmmam le 8 ak le 9 foofu nga koy amee ca Louga di gàmm gu mag boo xam ne moom moo koy teewee di ci nuyu alaaji Thierno Abdourahmane Malick ca Bogol yàlla na ko yàlla defal jàmm Aw xalif bu Thelaaw alaaji Ousmane Ndiaye waaliyu kaamil nekk ci HLM Angle Mousse ak soxnaam Adja Mam Bousso Cissé ñu koy ziar di ziar alaaji Bassirou Bara nekk nag foofu ci HLM Guédiawaye di nag Mourid Sadiq ak bépp taalibi boo xam ne yaa ngi koy ziar Go Fall ak Abdou ñu koy gu yaram ak El Hadj Abou Bilal Serigne boobu léegi dégguma ko nag wax xam naa ne li nga xam ne moom la Mati joxe daal daf ma cee boolewul am déet waaye nag euh, Mati addiye ba mu yóbbu nag sëñ ba sama xaalis mu ngi ci te ba muy tudd ma ci maa ngi koy kalaameeg sëñ wax ne bés bu jotee ci xibaar bi na wax mati ne ko li mu doon euh, ñaan bi ñu ko jox ñun ñaar a ko bokk di nuyu tamit Serigne Mbaye Sy Mansour suñu papa suñu xarit ci kanam dina ñëw ci moom léegi gën a yaatal mbir bi ak xaritam imam Tafsir Sakho ak Ousmane Sakho doom ja ñu leen ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram bu maam Abdou Aziz Sy moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak Chérif Ahmed Tidiane Aïdara yàlla na yàlla guddal fanam ki nga xam ne suñu papa la di sëriñ euh, alaaji Seydou Sow nekk euh, sopp sëñ dëkk ca Passy di euh, góor gu baax goo xam ne nag wax dëgg yàlla nee na mu ngi ñaanal fu ñu toll ndax yàlla dafa ñu jàmm mook sëriñ Cheikh Tidiane Diaw nekk ca yaraax di nit ku yàlla baaxal moom tamit yàlla yàlla guddal fanam ak sëriñ Mama Sugu Waadaan ñii ñëpp suñu ay papa yoo xam ne seen ay course du jóg ci ñun moo tax ñu leen ñaanal fan bu gudd moom ak ki nga xam ne mooy Cerno Amadou Ba xale fu Bambilor ak Abdou Karim Mangane ñaari soxna yi Fatima ziar leen Serigne Maodo Sall bu Sicap Mbao ñaan na ko yàlla defal jàmm ak cardinal bi xam ne moo fi nekkoon cardinal Théodore Adrien Sarr di wéetal suñu borom foofu ca jàngu ba ak ki nga xam ne nag mooy Serigne euh, Mansour Sarr nekk foofu nga xam ne nag moom mooy ca Tiwaawan dëkk ci Budi ak soxna euh, soxna Aji Kiné Si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Si Al xalif général kulu Tidiane ñu ngi koy jaarale nag nuyoo bi ci bépp xalif généraux boo xam ne da nga jiite ay tarixa war a nga seen taxawaay ci réew mi am na solo trop nag ci turu Serigne Mansour Sarr ci Budi yàlla yàlla guddal faram moom tamit ki xam ne nag mooy Alaaji Basiru Touré xalif Daaru Rilwaan ak Alaaji Serigne Touré nekk ca Touba moom suñu xarit la di am mbégte contentement tamit ci képp ko xam ne yaa ngi foofu ca ñànk idi alaaji Mamadou Hadama Gaye ca ñànk idi et toute la ñaanal na leen mbokk yi nag mbégte nañu am tey ak contentement waaye nag dañu am suñu xarit boo xam ne mooy Habib Mbeng wax nañ leen ko bés bu ne moom li muy waatee sëñ Babacar la dafa dem ba loolu dëggu ci moom moom ci boppam nag xam ngeen at bu nekk day li nga xam ne moom mooy gàmmu delloo njukkal sëriñ Babacar si samedi le 9 euh, janvier yàggatul ci lañ ciy teew Télé Futurs Médias ca teew waaye moom nag bés bi da koo jagale bépp nit boo xam ne xaritam nga wëlër nga rawatina ñi nga xam ne dañuy sopp sëñ Babacar si taalibe yi nekk ci Medina HLM Géejawaay partout ak képp koo xam ne sopp sëñ Babacar Si ma ngi la cay woo nga teewe ko ndax kii doomu ndey la te borom kër gi xaritam la ñu ngi koy ñaanal bés bi nga xam ne nag moom incha allah euh, euh, ki nga xam ne nag moom mooy représentant xalif général di Serigne euh, ci édition euh, Serigne euh, Cheikh si almaxtum moom ci boppam ki ko fay teew mooy Serigne Abdoul Aziz si al moom ci boppam dana fa teew moo taxit bés bi ñu ngi ñaan HLM keroog yàlla na fa jàmm wàcc te jàmm dana fa wàcc te ne bu bàyyi la ñu téye ko ba bés ba jàll ndax bésu sëñ Babacar si ci HLM ñëpp ko war a yëg kon abi mbeng ñu ngi koy delloo njukkal di ko ñaanal fan bu gudd ak wér ñu def nag mooy seeti abbé Jean ñun HLM dañoo yàgg ak chrétiens yi ndax église bi njëkk ci HLM bu rafet moo taxit ñu xëy di leen toppandoo du doon jafe-jafe ci ñun président bi nga xam ne avant ñuy dem ci euh, maanaam diggante gàmmu gi dafa am lu coïncider loo xam ne am na ay junni at amul maanaam diggante gàmmu juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ak juddu ki nga xam ne moom mooy Yeesu Krista borom leer bi ñoom boo xoolee seen bés bi dafa raayantoo dafa jegantewoo muy wane diggante lislaam ak chrétien dëkkandoo ak àndandoo ak gëm-gëm am na lu ci abbé jàngat ñu seeti abbé moom mi nga xam ne daf ko boole ak ay ñaxtu jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf di leen di nuyu yéen ñëpp di am mbégte bu yaatu lool wax dëgg yàlla man de ndol ndol laa jànge falaa solo te falaa takkee li nga xam ne nag mooy tax nga dugg yoonu jàngu bi waaye mere naa lool amin ndax amin te mbenge nañu wax njaaxaanaay yaay ji ndey moom lay tëddee waaye nag moom de wax dëgg yàlla dafa am seex bàyyi benn seex ba faral benn seex ba ndax man loolu laa ko mën a jagate ren mbaam mba mbaam bu nooy nepp duggul ci réew mi mbaam yi nooy yëpp ñu ngi leen bloqué ca Guinée saabo waaw lu taam loolu loolu waru ko teg fenn ndax loolu def nekk loo xam ne point de vente yi nga xam ne moom la waa waa waa daral gi wàcce fii ci stade eh, Léopold Sédar Senghor ak daral yi nga xam ne moo am te Liberté 6 ak te Seras foo dem rek am fa xar am fa béy am fa gëlem am fa nag ñun chrétien ñi mënuñu am ay point yoo xam ne fa ñuy jaayee mbaam mbaam bi boo ko amul fii ñoo na rek pour nga am ko Dakar coono la te kek kek ndax mbaam yi màgget nañu am ndax mbaamu Dakar yi wax dëgg yàlla mbuus ñu lekk ko du ñu bàyyi carton du ñu bàyyi mbalit yooyu sax wax dëgg yàlla sax am na ci luñ ci defee boo xam ne buñ koy defee dana set ci biir waaye mbaamu jine bi sax wooyi nooy na nooy goo xam ne nooy na nooy ba xam ne boo ko boo defee diwlin ki ba mu change mën na ko ci cos ba solo ci soble mu xucut ba dem ca kaw ba xet bi dugg la dootoo am jam teg ñëwoon ko waaye ren kenn lekku fi mbaabu Guinée Bissau fan la ko teg fan la ko teg moom amin tamit Njaay fan la ko teg te éleveur mbaam yëpp dañ koo mere ndax impôt yi nga mbaam ci bopp waaye mbaam ci boppam mbaam ci boppam ci ndeyam bi nga xam ne moo jur mbaam dëkk mbaamu Guinée Bissau ni ngeen di waxee bali bali ni ngeen di waxee ne xar bi bali bali la xar bi laadum la noonu laa amee ay laadum ak ay bali bali ci ci mbaam yi ndax mbaam bi da gën a nooy mooy añoo de bi te mu ngi jugee ne Guinée Bissau ndax ñoom ci karo dinañu nekk ak ci toolu ñambi yi ñoom du ñu lekk leneen loo xam ne dafa rax ci mais suñu mbaamu Dakar yi nga xam ne foos bu bon ñu ngacc ko seen bopp balaa waa ONAS ci ñëw waaye muus boo sànni sax bu yàggee foofu ñu fon ko daal di koy jaxase suuf si mag ko yooy wax dëgg yàlla ndax dafa am yoo xam ne nag dañ koy bañ Aminata Mbengue Ndiaye nag maa ngi lay kalaame Macky Sall ne ko bu bëggee tolanti dëgg yu mel nii bu amee na tolanti lu baax li nga xam ne moom la doon def ndax mbaam bu ndaw ndaw rek añoo bu ndaw bi nga xam ne boo cofee yaram bi boo ko musiwee sax yàq yi ngay gën a gis ndax yàpp bu nooy kenn mënu koo laal ren boo laalee ñu ne la mbaam cinquante mille jàpp soixante quinze mille te mbaamu jine bi saa wooyu nooy na nepp nepp nepp nepp doo soble sax doo ko roof dafay nooy ba nga ne boo doo yëg sax ne yow cure dent sax dugg na sa gémmiñ ndax dafay nooy du càng sa bëñ nii moom la Aminata Mbengue Ndiaye wax ne da koy taxe mbaam bu nekk mu teg ci ñaari junni ak juróom téeméer ren kenn sañuwul mbaam yëpp a wow koŋ ba pare yàpp bi dëgër keng keng keng keng keng loolu da du yoon kon Macky Sall yàlla ci boppam mu ngi defar senegal ndax bu demee ba juddu Yeesu Krista di dendal ak ju juddu yonent yàlla Muhammadu Rasulullah bi nga xam ne moom la julli di gëm mooy wane ne jàmm ji am Sénégal yàlla koy defaraat bu baax mu kon ko dëggante suñu diggante ak yéen di wax nag olof moom ak jullit yi wax dëgg yàlla dañ leen indil ñu sax suñu bopp dañoo am kere chrétien bi ñaari coono la am ndax day jënd mbaam pour waa këram waaye day jënd xar pour dëkkandoo yi te bu jullit yi aayee kat ñoom du ñu jënd mbaam pour chrétien yi xar rek nañ ñu yàkkal kon kay moom dafa war a wàññi mbaam yi pour ñu mën a yàkkale ci suñu yàpp yi nga xam ne moo yàpp xar waaye yokk mbaam yokk xar doo yàkkale mbaam doo yàkkale xar bu dellu ci ginaar loolu tax ñuy wax chrétien kay dëgg dëgg dëgg dëgg mbaam mi dañ koy dóor mu daanu moo taxi ma ne nag sal soo bëggee tollanti nga war a tollanti di nga xool nga tollanti ba mën a tollanti ma kii tollanti saala e Macky soo tollante soo buggee tollante di wax li tax nga war a tollante jaaral fi jaar ba tollante eh. Macky Sall boo buggee buggee boo buggee tollante tollante soo waree tollante tollante soo buggee tollante di xool fi ngay ba tollante tolante Macky tolante soo buggee tolante ey Macky tolante soo ba tolante di nga xaar jaar wa tolante Macky ey Macky tolante soo buggee tolante da tolante Macky Sall yo tolante soo buggee tolante di nga fi ngay jaar ak sax bi kolanti maki kolan booy maki tey sax tey sax la wooy wooy wooy wooy maki tey kolanti soo buggee kolanti dinga kolanti nga wara kolanti doo kolanti soo amul ngërëm ay mu yay leer na Cheikh Béthio matu wasila Cheikh Béthio jiite jànkalaar yaan coyano wa kayle yaan yu mag ya aat seen lëndëm nga Cheikh Béthio soo xamul borom jamono gëm ko Cheikh Béthio doo ma sëg muccu ca pax yu xóot ya Cheikh Béthio yam rawe su faa kay ma dee la ñaan ci yërmandem yàlla may la Cheikh Béthio xol bu masta bañ Cheikh Béthio am na ñu mbégte ak contentement bu mag euh, nuyu nañu bàyyi Aliou Diagne ancien combattant alaaji Lan Joori Gueye ak alaaji Mamadou Niang ñu ngi leen di ziar bu baax bàyyi Aliou Ndiaye Tahirou Sy ak Mamadou Ali Birane Niang ñoom Thierno maam Fama Gaye ñoom ñëpp ñu ngi dëkk ca ñànk Edi ak Pape Sy nekk ca Sonam ñu ngi koy ziar waaye tamit euh, du nuyu bu baax ki nga xam ne nag moom mooy euh, xalif ba di Thierno Adama Gaye dëkk ca ñànk Edi ak soxnam Adja Hawa Dia ñu ngi koy nuyu Liberté extension la dëkk ak Khady Sall nee na Ndiaye euh, euh, Oulimata euh, Oumou Salamata Dia doomu ajaa Binta Gueye la ak ki nga xam ne mooy Khady Sall ñu ngi koy nuyu ñoom ñu ngi dëkk ci Liberté extension nee na Ndiaye dëkk ca Nianka Edy nekk ci dakaar ak Adja Aïssata Adama gay sa sœur Adja Fati Thierno gay ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di tamit bu baax. kii nag sama xarit la ñu naan ko Leena Seck moom nag it mooy gérante Zaki traiteur ñoom Brice euh, Zut ñu ngi koy nuyu ñoom Rosa ñoom Véronique ñoom Babette sans oublier Fatima ñoom Mami Touré et son comptable Mamadou Dieng nekk ca Sacré-Cœur 3 beneen extension ñoom nag ñu ngi leen di nuyu di leen sant incha allah dinañ fi teew euh, fii ak vendredi pour indi nag ñoom leen seen décoration ci prix bi ci maanaam ci li muy yëngu daal moom dina ci defal ay xéwal yoo xam ne dina ko indi fii ci Kouthia Show moom Leena Seck gérant Zaki traiteur di jigéen ju mën góor jaar Côte d'Ivoire ak Maroc Mali yëpp taj fa ba ñëw Sénégal nag fas yéene ko rajaxe ko ñu ngi koy nuyu bienvenue au Sénégal Omar Ndiaye neveu de Mamadou Adama Gaye ca ñànk édi fils Adama Gaye euh, nekk ca Kër Massar ñu koy nuyu di nuyu tamit Serigne Modou Ba fils de Baba Laye Ba ñu koy nuyu ak Mariam Gueye depuis Mbour Tukulër xale bi nag di Serigne Modou Ba vraiment ku bëgg Kouthia la yaay ji ak papa ji seede nañ loolu ci téléphone ba nag wax dëgg yàlla ñu koy nuyu moom Serigne Modou Ba euh, Diarata Keita ne ne Djibi Debbo et son père Mbar Sy nekk ca euh, Saint-Dié des voyages de France, Dieu des de France, de la part de son fils, capitaine Ibrahim Si, actuellement à Dakar et toute la famille ici, à euh, de France. Omar Touré, commerçant, centre commercial El Malik de la part de Issakha Touré, Fansou Koutiala, nous connu président Doudouba, qui n'est pas là, avec Binet Ndiaye, nous Abim Mbaye, nous Sokhna Mbalo, Sokhna euh, Mbaye Ba, Bouba Diatta ñoom ñëpp ñu ngi félicité ci Kouthia ci prix bi Koli euh, moom tamit ñoom ñëpp ñu ngi invité sa seen taalibe yi le 31 décembre foofu ca Norvège président effectif de Thierno Bari ak Thierno Bari euh, Serra depuis euh, à Paris le 28 décembre incha allah foofu la Thierno fas yéene ñu ci nuyu képp koo xam ne nag soppe nga war a taalibe Thierno Alpha Bari nga ñu ngi nuyu tamit wax joyeux Noël à sa belle-sœur Marème Fall Madeleine Fall Sophie Ndiaye maman Mimi ñu ngi koy nuyu Anna pédiatre à l'hôpital Youssou Mbergane foofu ziar nañ ko mère Samba Agnès nekk foofu nag Charles euh, Charlemagne Passen et ses enfants toutes les chrétiens du Sénégal de la part de madame Jo Fanta cité euh, dalal jàmm près de la sagesse kooku sama jigéen la yal na ko yàlla defal jàmm ñuy nuyu bu baax Serigne Samba Touré mi nga xam ne nag samedi le 13 février lay amal nag euh, gàmmoom googu foofu ca sant ba Njóobeen yaan yàlla egg ak jàmm gërëm nañ ko sant nañ ko waaye tamit di nuyu suñu papa bi nga xam ne nag moom mooy euh, Thierno Alpha Bokar kande moom ma nga dëkk ca Kolda ñu koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal fan bu gudd gur bu yaram kon nag mbokk yi ñu dem seeti Abdou Diouf ca buntu fi nga xam ne moom mooy ca dëkk ba mu juddoo di Ah, waaye nag Louga bi nga xam ne nag fa mooy cosaanam di juddoo Louga aussi am kër ca Ndar président Abdou Diouf wax na ay kàddu yu am solo dénk na waa sa waa Sénégal Macky Sall lam fa wax nag ma ngi ko waxee ci ambiance am solo ngi seeti Abdou Diouf foofu nga xam ne moom mooy ca Louga njool kumba Abdou Diouf borom nay leer Abdou bëggul lëndëm nay leer saay nay leer Abdou xamul lëndëm jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant maa ngi leen di gërëm di leen sant ci teeru bi ngeen ma teeru ma nag ma fi pour meeting pour yàqal ki nga xam ne mooy Macky Sall waaye dama fi ñëw pour jàppale ko xale bi am na yar am na teggin te yaru na sagal na ma moo taxit ma xool ba mu neex ma ma ne dinaa ko seedal loo xam ne tey ñu bari dinañ ci teg sa làmmiñ teg ci seen bët Macky Sall boo ko yónnee mu dem Macky Sall boo ko yónnee du taxawaalu Macky Sall bu leen ko piis ne leen ko jàkk mu xool leen bu jogante amoon tey du ma làqatu ndax ki la tuddee centre boo xam ne xalaatoo ko woon dama nekkoon bu vote jotee dama koy votel ak sama njaboot moo ma xool ba ma nekkoo mu doyloo ma woo ma na ma denk naa la sama xalaat ak sama xel loo ma wax loolu laa def Sénégal waaye namm gi ma namm wa socialiste yi moo tax ma denk leen Macky Sall pour ñu ànd ak moom liggéey nañu liggéey Ousmane Tanor liggéey laa la sant ci ginnaaw Macky Sall na ko jàppale bu leen ko faxatal te bu leen ko piis dee leen ko jàkk ne ko xujj mu xool man njool kumba man mi sonaloon Ablaye Wade maa dem ba nangul Macky Sall ne góor yàlla la sama jaar jaar ak jaar jaaru Macky Sall xaw na ci benn côté waaye li ci am solo mooy xale bu am yar la bu am teggin te mën a liggéey yéen waa parti socialiste Macky Sall desatu leen dara ndax jël na yéen ci bëri ci seen parti ci militant yi def leen ay responsable ci biir gouvernement am kon won leen ko ne gor ngeen boo tuddee Aminata Mbengue Ndiaye mu ngi parti socialiste boo tuddee ki nga xam ne mooy Moustapha Diop doomu Louga la waa Louga am nañu cër ci gouvernement bi socialiste yi am ci cër ci gouvernement bi kon fexe leen ba bu leen ma rusloo ndax dafay jël ñeneen bàyyi leen tànn ma kon ndam li ñoo ko war a am ñun waa socialiste bi ma fi nekkee président de la république mus naa dalal Youssou Ndour laaj ko lan moo tax nga way capacoli mu ne ma fi ma jaar ko fa jaar doon capacoli ma ne ko yaa ngi ànd ku jara àndal yaa ngi ànd ak koo xam ne tamit capacoli la ko niñ ko woyee waaye dañ doon wax ne ndaama day saf xorom njool day lewet waaye du njool mi daan nañ may wax ne njool faalewul ndaama waaye njool ci boppam dafay lewet ndaama mooy sab xorom waaye tey njool mooy sab xorom ndaama mooy lewet nga fexe ba prix yi ma doon wax ma fekk ko fii. wala boo duggee ba ci biir di nga xam ne lépp dëgg la. waaw dañu ñëwoon xool si chambre à coucher yi nga xamante ni dañu nekk en promotion moom lañu doon xool si. waaw xéwal bi la ñu ah, wax. waaw mooy xéwal <laughs> waaw ah, wax nga ah. ma xool. ah maa ngi si la. kontaan nga ci man. gis <laughs> nga. nooy la ngeen. xanaa gëm gëm dëgg dëgg. tëppiru seeni lal nooy na. dégg li <laughs> amul ak ak armoire euh, six battant. la. kon dëgg la. gis nga ci njëg gu tollul téeméeri junni nga am lal am armoire six battant am sa coiffeuse. li tapis rouge rek la xew. prix yu mucc ayib yu yomb yu xéewale sa kër yaa xanaa ak tapis rouge xanaa neex. shake, strong shake, strong shake, strong shake, strong shake, strong shake, strong shake. Now bu bez reaksiyonlarken mutsuz strong shake. Cafka biberle lamel yapma çiğden. Strong shake. Barina vitamin tebati.

xeltam sama jigéen di nga taamu ren Zobu Mada ak ren Zobu Mada dootoo benn coono. dina setal say ndab nes na say karo yokk taar sa oto ci bàyyi xet bu neex a neex taamu leen Renzo bu Mada yéen ñi bëgg ndab li set kër gu set xeeñ lu neex Mada Renzo multi usage la magie la propreté Touba xale nag buy soog a jóg ñu ngi koy ñaanal nag carré bu am solo wax dëgg yàlla nag euh, xale la boo xam ne nag ay atam néew na lool te la muy woy neex na trop ñuy ñaan nag euh, nañ ko jàppale bu baax ndax wax dëgg yàlla boo déggee kàddu bi yaakaar na ca États-Unis la juddoo te mu ngi fii nag ci Sénégal yal na ko yàlla defal jàmm ak carrière bu am solo moom tamit ñu koy nuyu ko fi jàlloon léegi nag di waykat boobu nga xam ne euh, suñu xarit la di Mohamed Niang moom mu ngi euh, xam ne nag le 8 incha allah le janvier la koy amal foofu euh, foofu nag di bés boo xam ne nag wax dëgg yàlla dana neex xam naa ne nag li ci am solo mooy taalibe Cheikh Béthio yëpp dañ fa dar dem ndax nag dafa décentraliser li nga xam ne moom mooy grand théâtre ba ko foofu suñu xarit la suñu wëlëra la di bàyyi xel émission Kouthia Show moo tax dañ koy nuyu baax Léna Seck ñu delloo di ko nuyu bu baax ak ñoom Brigitte ñoom Zey euh, Rosa Véronique Babette Fatima Mami Touré ak le grand comptable Mamadou Dieng depuis Sacré-Cœur VDN 3 moom nag wax nañu ko suñu xarit la mu ngi waajal nag benn nganale bu mag boo xam ne ay xéwal lay doon ndax leen sekk traiteur la foofu ci sekk traiteur moom nga xam nag mooy responsable moom ko yàlla na ko yàlla defal jàmm ndax ndax yéene rek la am ci li nga xam ne mooy groupe Kouthia Show yàlla na yàlla ba def ñu egg ci ak jàmm Serigne Habib Gaye di mu wax da mu Serigne Mansour Sy moom ci boppam ñu ngi koy ziar ak bépp taalibe boo xam ne nag da nga euh, da nga da nga yaakaar ci moom ndax wax dëgg di taalibe sëñ si moom euh, sëñ Habib Gaye ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu moom tamit bésam bi le 6 février 2016 foofu nag ca jaxaaw route de base en face ci këram waxtaan bu am solo la fay demal kon mbokk yi loolu dinañ ca teew moom at bu ne ñu tooy ci ngi koy gërëm di ko sant nag di am mbégte contentement bu yaatu ci ki nga xam ne moom mooy président Doudou Ba ak ñoom Kiné Fall ñoom Bintu Ndiaye Abi Ndiaye soxna Mbaalo soxna Mbaye Ba Bouba Diatta Abdoulaye Koli ñoom ñëpp nag suñu ay xarit nañu ñu leen di gërëm di leen sant ay taalibe euh, Thierno Abdourahmane bari lañ ñoom ñu ngay préparé ñoom tamit le 31 décembre foofu ca Norvège ndax xam naa ne sëñ bi dafay teew mbégte la ak contentement bu mag nuyu tamit Serigne Modou Ba fils la Baba Baba Laye Ba di xale bu ndaw boo xam ne tamit ku ñu sopp la yaayam daal moo ñu woo ak euh, papam daal wax ñu daal cofel bi seen doom am euh, ci ñun muy mbégte bu rëy moo tax ñu salon Ndeye Madeleine Diouf depuis Thierno Ndiaye et toutes ses élèves de la part de Fatima Arona Dembélé ak njabootam depuis Paris Mont Montreuil ñu ngi koy nuyu ñoom Tata Dieng ba 18e Koumba Sissoko ak madame Dembélé Adama Dembélé Amadou Dembélé depuis Paris ak Funti Sall Adja Sumbura euh, ñu ngi koy nuyu ak Ousmane Dembélé et son fils Omar Dembélé Euh, ña nga ca Paris euh, de la part de Toutou mu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di tamit xaarankat yu mag yi nekk foofu ca ca Yara xam naa ne ñoom bu fekkee ne dañuy xaaran boo motul ci poste de santé yi nañuy faral dem bu ñu déggee daal nit matu na ba am doom ñu topp ko xam fi mu dëkk jàpp bës ba nga xam ne ca la génn ñaari fan dañ fay jaar ñoom groupe xaarankat yi ñoom Awa Wade Chéri Ablaye Dieng ca Kappa ñoom Sanu Fall nday Mariam Sall Aïda Diaw euh, Aïda Wele ak Rama Bar ñu daal ay jigéen rek la ñu Ndeye Fatou Diaw ñoom daal lañ fi nekkee wër di lekk la ñuy euh, yendoo moom la ñuy fanaanoo tiyaawan ba la fa def nag mooy fexe ba am fu nekk daal dugg fa takk njaq ne tëri taalibe sëñ Babacar Si ñi sëñ Mansour ñi maam Abdou Aziz bu ne daal takk nañ ko fu ñu mun dugg rek daa dafay euh, lekk moo taxit bañ ca coroxaane am nañ ca ndàmpaay mbokk yi nag fi ñuy jëm mooy ànd ak madaar mi setal kër yi ak strong check bi nga xam ne mooy neexal guddi yi ak bëccëg yi nga bi nga xam ne bu tàngee neex bu seddee neex ñoom ñoo ñuy gunge ak sponsor yi ci Kouthia Show bi nag mu ngi noonu kon mbokk yi livre yaa ngay daw ba ki nga xam ne moom mooy Abdou Latif Coulibaly génnee Aline Fall teg na ci keneen ñëw na encore mu docteur Cheikh Kanté moom tamit jaar jaar laa kabisol waaye livre bi ba nga ko tëkkee ci biir am na lu mu ca wax nañ ko dem seeti moom Cheikh Kanté bi nga xam ne Euh, doomu ndeyu président de la république Macky Sall la moom ci boppam libre mba laa camisole camisole nag boo ko déggee la ñuy sol rek ndax da ngeen dégg paa yi daan wax ne jottali ma sama camisole bi war a maire naan yëkkatil camisole ba teg ko ca armoire ba ca bayu ba bayu nag ñu koy wax mooy ñu judd sa 70 ak 60 ñoo xam bay mooy yow <laughs> ñu seeti ko ca bayu ba ne Cheikh Kanté yaa décanté ma wax sama xalaat ci Afrique wax sama xalaat ci réew waaye wax sama xalaat ci Afrique ni mu mën a suqalikoo artiste la manager la directeur la waaye dafa dafa jot Afrique pour ñu suqaliku oh camisole oh, La camisole. Oh, la camisole. Portée par les esclaves, nos ressources africaines. a toujours porté la camisole. Camisole. Nos arrières-arrières, grands-pères, grands-mères on portait la camisole. Camisole! Source de développement africaine, richesse de la camisole africaine. Oh, camisole. Cami, cami, cami, cami. Camisole! Yow camisole. yëre la bu nit di teg ci yaramam pour xam li nga xam ne mooy mbuumu jaam bu yàgg ba ci nit ku ñuul tubaab bi jël xam-xamam ak am-amam teg ko suñu koom-koom Afrique war a suqaliku si gii bu ñu tubaab yi jàngul woon français ay fan laay jaar ba xam ak sama soxna si nga xam ne tubaab laa làkk ak moom mu tontu ma. joolaa bambara séeréer tukuleur juulaa ay bu tubaab bi doxuloon suñu digganteeg Côte d'Ivoire Mali ñuy wax tubaab tey lakkante xamanteeg diisoo mën a suqale ko kaami kaami sol Macky Sall solol camisole suqali Sénégal suqali Africa yow mi judd après indépendance oh Macky Macky Macky Macky solol camisole Macky Sall boo solee camisole oh Macky yaa ngi dajale réew yi làkk tubaab lëkkaloo diisoo sama soxna si nga xam ne dégguloon olof ba may làkkanteeg moom ci tubaab laa làkkanteeg moom ba ngeen jox sama digganteeg moom ba sëy am ci tubaab bi def na lu baax waaye am na fu mu defee lu ñaaw Macky kaami sol kay sol kaami sol ko ci tubaab yi ci ñun nañ ko njëkkee boo duggee ku sant Njaay ngay joobeen ngeen kalamte nga dem ci ku sant Meng mu sant Ndooy ngeen kalante xalpulaar ak séeréer di nangonte ay béy di kafante weccoo beeg jënd bi ci sa alal jox ma gerte ma jox la dugub Macky Macky Macky solal natal natal la kaami sol de développement africain la kaami porter la camisole. oh Macky solol camisole. fierté africaine. monnaie unique pour l'Afrique. suñu xaalis bopp ñu xam ñoo ko moom. tubaab bi baax na fi waaye yàq waaye ñun defar nañu gëm nañ suñu bopp te si wax waxmaandi Normandie les intellectuels de haut niveau dajaloo waxtaan kàllaamay tubaab ngir mën a tëkku Afrique ñu xamante échangeante oh mais sol kaay sol kaa sol ma suqali mbay développé yi toog bañ eh! kaami sol kaami kaami oh, sol oh kaami sol Afrique porter camisole camisole. oh oh oh oh oh. oh oh oh, oh. les esclaves chantaient les louanges des nègres. wooy Macky wooy. camisole. camisole. camisole wooy camisole. camisol, camisol, camisol. gërëm di leen sant di nuyu bébé Ndiobu Diouf fan doomu Yaram euh, Diop depuis Kër Góor euh, Soda Sarr depuis Yaraax Kër Góor ñu koy nuyu waaye mère Ndey Si ak Pape Demba ama famille Modou euh, Fatim ak mami ñoom Daba Absa Fatou Oulay Rama ak Aram ñoom Assou Minette tous mes copines ñoom Zou ñoom Baye Baara ñoom Ñase ak Zoli Imam ñoom Maas Serigne Rane Cheikh Laay Xaadim ak Pape Moussa waa boutique ba yëpp de la part de Pape si yëmbala moom ñu ngi koy nuyu foofu ci station ba de la part de Horatio ñii ñëpp nag ñu ngi am mbégte contentement Omar Ndiaye neveu de Mamadou du euh, Thierno Mamadou Adama euh, Gaye ca ñanka idi fils de Penda Adama gay Kër Massar ziar nañ ko waaye tamit delluwaat di nuyu Leena Seck sama xarit ñoom Brigitte ñoom Rosa Véronique Babette Fatima Euh, Mami Touré et son comptable Mamadou Niang depuis Sacré-Cœur 3 VDN ñoom nag ñu ngi leen di bu baax Leena Seck nag ba ma waxee ne ma Kouthia bu ma ñëwee nak indi sama xéwal ci prix bi nag euh, ba tey laa euh, jàpp ne du ma lekk tànk bés ba ñëwul ndax xam naa loo xam na muy saf ko ko macc moo ko xam di ziar suñu papa Alaaji Thierno Bokar Kandé nekk chef religieux dëkk ca Kolda Moussa Baldé président conseil départemental bu Kolda di directeur général Sodagri nuyu naa ko waaye di nuyu tamit Assane Gueye foofu ak ak soxnaam ñu ngi koy nuyu waaye tamit nuyu Mamadou Mamadou Mohamed nañ ko bu baax nekk foofu tamit euh, di bëgg ci waa rédaction ñoom ay Aïssatou Faye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ñu nekk ci télé bi maa ngi leen di gërëm di leen nuyu bu baax ndax gis nañu taxawaay bi nga xam ne taxaw nañ ko moo tax it du ma sàppi di leen nuyu ndax ñooñu ñu baax nañu wax dëgg yàlla ki lay feeñal sa bés moom boo toogee rek dee ko nuyu ndax wax dëgg yàlla lu rafet la lu am solo daal ñu koy nuyu sëñ Fallou Mbacké docteur suñu xarit bu takku ci ñun waaye tamit di ziar tamit Cheikh Baye euh, Baye Cheikh Mamour Insa Diop chef religieux à ak Cheikh Ababacar Diop Cheikh euh, Aïda Diop Ndeye Fatou Diop Ndeye Daaba Diop ajaratu soxna euh, Khady Sall Bilik Diop Pape Ousmane Diop Fëgala soldaaru Baye Mamour Insa Mohamed Kassé ak euh, soppey Baye Cheikh yëpp de la part de euh, suñu xarit bi nga xam ne nag moo nekk fii ci régie bi ñoo ngi ko Doudou Sow Mamour Insa Diop ñoom ñëpp Zakira ca Paris ak Saer Insa Diop actuellement à Dakar ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di am mbégte contentement bu mag ci ñoom di leen gërëm di leen sant nag incha allah mbokk yi ñu leen waxee ci biir semaine Euh, fii ak euh, ajuma dina am nag tamit surprise bu mag moo tax ajuma incha allah day nekk plateau spécial boo xam ne nag euh, plateau delloo njukkal la bu soobee yàlla buñ ci gën a ci bés bi dinañ ci gën a yaatal ñuy remercier bi nga xam ne wax dëgg yàlla dañoo gunge te ñu benn yoon la ñu gunge Istron Cheikh bi tamit dañoo gunge te rëccuñu ko ak Zaman bleu Zaman marron wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy jàppale si suñu liggéey ñuy am mbégte contentement bu yaatu tamit di gërëm Lamine Samba moom tamit wax dëgg yàlla gis nañu wàllam ak Tata Dëggeen ñoom Pape Cheikh ko jiite gërëm nañ ko sant nañ ko baax équipe yi yeewu leen ak Wareef ak Lamine Samba journal bi yëpp wax dëgg yàlla gis nañu seen taxawaay ci bés boobu ni ñu ko rafetalee ñoom ñëpp daal ànd ci lu rafet la euh, mel na daal euh, loolu mooy wax solidarité solidarité mooy nga nekk ak mu nekk ci bànneex nga ànd moom bu nekkee ci naqar da nga koy defal kon ñu ngi remercier ñi nga xam ne nag jot nañoo wax ci prix bi ak sargal ñu ñoom ñëpp nag ci turu Youssou Ndour waaye delluwaat di gërëm ki nga xam ne mooy Birane Ndour mi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm moom lettre am moo njëkk ñëw te bu lettre am ñëwee rek day mel na Mamadou lettre am ñëw na mel na tamit euh, Youssou Ndour ak Cheikh Amar ñoom ñëpp seen lettre ñëw na ndax kenn ku ci bind ci ñoom ñëpp nga bindal bàyyi woo kenn ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax dëgg yàlla euh, jàppale bi nga xam ne nag jàppale ñu ko mooy dëfal bi rek maanaam félicitation boobu ndaw boobu xeebuñu ko moo tax ñu ngi leen ci gërëm di leen sant di leen ñaan yàlla euh, prix yooyu muy tas ci kër gi kenn ku nekk mën koo jot su ko defee mu nekk ndabu équipe du ndabu benn jour ndax équipe bu jour bu dugalee bal bi tax ñu qualifié kenn du topp jour ba équipe ba nañuy topp waaye jour baa def li nga xam ne moom mooy jaloore ba lu mooy équipe ki gañ tey nag ci ngoon Macky Sall de recevoir Lyon yi moo tax it euh, gis nga yàkkamti dafa amul solo moom fàttaliku nag ne euh, daal àdduna ngi noonu daal kon àdduna amul solo loo fi gis dafay jeex ki ñu seeti nag moom mooy Aïda Mbodj Aïda Mbodj nag mere na Macky Sall mere gouvernement Macky Sall parce que nee na bu ñu tëjee Karim Wade tëj Omar Sarr tëj Boy Manga tëj ñu bëri ñoo xam ne ci membre PDS sañ bokk léegi ñoom bu ñu demoon élection tey kan mooy fu ñu jëm ndax genn wàll parti yëpp tëj nañ leen ba kenn ku nekk talatoo sax wax lu jëm ci ay élection yaa ngi xalaat détenu yi nga xam ñoo nekk ca kaso ba Aïda Mbodj nag nee na tey mooy wax bi nga xam ne li Macky Sall di dégg ci noppam tey tey tey tey na préparé xam ne jigéenu PDS dañuy def seen bopp talaatay ndeer bii par dootuñu tàggoo dañuy dem te dara du leen téye <laughs> talaatay ndeer ñu seeti ki nga xam ne nag doomu Bambey la doomu Bawal la doomu Jurbel la moom Aïda ca ca tëkku mu nga xam ne ñoo ngi koy jël di ko teg gouvernement Macky Sall bi leen indil fitna Aïda jërëjëf fu ma dem waa Bambey may topp du ma tiit du ma jaaxle waa Bambey fañ ma def seen biir xool dafa dëggu ci man waaye nag dafa jot nag pour ñu wax ak Macky Sall ndax doo jàpp doomu Ablaye Wade ne ràpp ci kaso bi Ablaye Wade am ngor ak teraanga jël Omar saa teg ñu jiital ñu nañu kii mooy samay bët mooy samay tànk mooy sama làmmiñ mooy sama nopp nga ne ko ràpp ci kaso bi tëj boo tëjee doom jël ki remplacé Ablaye Wade nga tëj ko manga mais nga xam ne yàgg na ca kaso ba ca wax ji yoo xam ne wax ji buñ ko waxee ba léegi léegi léegi kenn delluwaat ci ñëw na ko ràpp ca kaso ba te jiite jeunesse bi xam nga ne boo tëjee jeunesse bi tëj mag ñi léegi loo bëgg yow Macky Sall loo bëggati wax ji nag nañ ko wax mu leer ndax ka wax wax ji dafa wax lu leer moom moo wax lu leer jottali ko gouvernement bi ñoom ñoo waroon indi lu leer Omar Sarr la mu wax te waruñu ko cay toppee dërëm ndax nag dañu waxante dëgg justice bi dañ ko war a xoolaat Omar Sarr bi ñu ne ràpp ci kaso bi tey député te loolu fuñ ko teg ndax flagrant délit day fekk mu nekk loo xam ne délit bu leer la waaye dama ne lii ñu def nii teguñu ko ci fenn teguñu ko ci fële ñun nag jëluñu génn ñu réew mi duñu bàyyi ba mbiri metti ñu daw di làqatu ci am ginnaawam ñi àndaloon Ablaye Wade ñëpp genn wàll nga ci ñoom ña nga bootu ci moom ñu doon ànd ak Ablaye Wade ñu bëri yoxosu nañ topp ko ci moom ba barki démb am na ku nekkoon rocceeku créé mouvement maam ñu ne déet na waaye mu ne candidat buy am 2017 ak xaw ma 2019 ñoom pare nañu pour jàppale Macky Sall te ci ci ñu la nekkoon moo taxit ma ne ñun ñoo ñu nga xam ne dañuy rocceeku du changer veste yàgg-yàgg kenn ku nekk li ne sa xel fii ci parti bi xam nañ ko boo ko defee duñu bett ndax ñun dañu waxtaan ak suñu biir dama ne Omar Sarr jàmbaar la waala waala te waa mbaan taxaw nañu tey pour taxaw temb seen doom jigéen man nag ak jigéenu parti bi nga xam ne ñun parti nañuy dund ak doole ak ngor ak teraanga waxtaan naa ceeg Adja Wara Sarr mu waxtaan ci mu war waxtaan ak ñun ñëpp tëgg nañu ab bés gis gis nga talaata gis nga talaata bii talaata bii ñëw suba ci talaata bi mardi bii talaata du dellu siwaat te Omar Sarr génnu ci kaso bi man ko wax ma ne léegi nag ma ne ko wax yéen a ko wax ma delluwaat ci ndax man duma ragal dana <coughs> danaa toxo te duma ma jàpp te du ma ràpp te moom ci boppam li mu bëgg mu xam ma Macky sàll ñun pare nañu temb nag pare nañu temb de ñu ngi koy lancer défi ah, ah. lenn laa koy xamal moom xam nga xeex bu amee nekk groupe fukk taxaw ba ñu nekkoon xale danaan maa tippoo kii kii naan maa tippoo kii man ne ko man tippoo naa Marème Fall fu Marème Sall Faye Sall fu mu génn maa ko tippoo dama koy xamal ne ko bu yowoo mu dugg dugg weer moom Macky Sall ne Marème Faye Sall nu dugg dugg weer dugg weer na bu ñu ko waxee mooy koy xam ne bu jëlee dépense jënd weer bi yëpp lu war a jënd dootul génn këram waaye Marème Faye Sall tànkam ci mbedd bi ah. man Aïda man Aïda man Aïda Mbodj ma Marème Faye Sall rek tànk ci mbedd bi am na problème dama ne waxuma la problème waalo ci boppam lay yenu ak Bambey yoonam nekku ci ki may waxal nii yoonam nekku ci yoonam nekku ci maa ngi ko ciy boole waaye yoonam nekku ci ndax yóbbante àq la Viviane Wade ma woo téléphone ne ma ku nekk bu tippoo kenn laa bëgg ngeen bàyyi ma koog man mu ne ma kan mu ne ma ajaratu yaayu Marème Faye sàll moom la Viviane tànn nee na yoonam nekkul ci yoon bi doomam sax moom yoonam nekkul ci li moom daal doomam bi bu jur di sëy ak Macky Sall loolu la ci am waaye ñun noo ko ciy dugal par la force ñu ngi koy xamal na xam na ne ajuma bu nekk fi muy jullee buñ ko jàppee ajuma bu yee bu yee mu sol noir fumé ndax taa Viviane Wade maa yóbbante de dafa am gàllankoor munu ñëw waaye ajaratu maa ngi lay xamal sa tànk rek boo ko tegee ci buntu jumaa ji ajuma gi dana mel na xaraba dar ñun nag ñu ngi entraîné wara saara ngay entraîné ndax guy geeg koy entraîné man nag xale yi Bambey yi ñu ngi may def la aussi mastic la ma ñàkkoon ca kattan yëpp maa ngi koy récupéré du ñu daaw du ñu dellu ginnaaw dama ne ki nga xam ne mooy maire Nafisatu Touré Nafisatu euh, notaire ba na jàpp waaw moom ci boppam xam na ma xam naa ko danaa ko kot maa ko tippoo tippoo Maram Fay ku ne am nga koo tippoo ay Aïda Mbodj moom si boppam ñu mu ci foofu ñu préparé xam na ñu ngi koy répété bu ñu génnee fii ñun ak ñoom kuñ ci jàpp nag duñ la dóor waaye nañ la kirtin tëj suñu kër ñun tamit am ñu seen kaso yu ñuy tëj waaye ñun am nañ suñu néeg yu ñuy tëj moo tax ma ne duñu daw duñu dellu ginnaaw gaynde xare day day xare